Daarakoki TV la chaîne au service du Saint-Coran, la seule officielle de l'Institut islamique Cheikh Ahmadou de Koki, télé bi liggéeyal Al Quran bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillah walsalatu walsalaamu ala rasulillah sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala bala maa tàmbali kàddu yi maa ngi jéggulu kàddu gu naqari gi ndax soj ak jafe-jafe coono yu tegaloo bu qualité kàddu gi ñuy waxe setul looloo ko waral ñu ngi koy jéggulu di am mbégte lool waaye di tàmbali suñu kàddu ci nuyu sunu woy jur sëriñ Xaban Diop biig biñ koy ziar dama ko wax ni ñun dañoo jàpp ni yaay xalifa fii i xalifa fële ca Pire ndax fanu bàyyi ko gisuñu ci taarixu lislaam ci Sénégal fu jaxasoo ak Pire ni kokki jaxasoo ak Pire sañ nañ fee ñëw nag laaj si àllarba te danañ ñu ko jox kon waaye sañ nañ fee ñëwit it ëndaale àllarba joxe si te kon danañ ko jël laaj si àllarba gi li ko waral mooy sëriñ Pir Xaali Amar dafa jàngal maam Maxtaar Ndumbe jël si àllar joxe si àllarba gi nag li ko waral mooy ñetti doomi sëriñ Pir yi moom Pir yëpp dañoo jaar ci loxo maam Maxtaar kenn ki xawoon naa moroomanteeg moom ci ay ab nekk promotionnaire waaye jàng wëlbatiku jànge ci moom muy maam ba muy taaw maam xaali bi maam mataar Ndumbe demee duggaguñ ci sujet bi damay wax rek délégation bi ak diggante bi bi maam Matar Ndumbe génnee ba dem Fuuta jóge Fuuta dem Sahara léegi Mauritanie lañ koy tuddee mais bu yàgg Sahara lañ koy wax ndax man naa am yeneen dëkk sax mu dem ko yu dul Mauritanie parce que Mauritanie découpage colonial la mais saxraa rek lañuy wax bi mu ñibbisee saxraa maam Demba dafa jàng ci moom ilmu naxwu kon sëriñam doonte doomu sëriñam la jàngandoog moom di promotionnaire waaye bi mu ñibbisee saxraa dafa dellu Pire def fa ab diir diir ba mu fa def nag historiens yi wax nañ ci lu bari ñenn ñi nee nañu ngorub fay borub ku la jàngal nga dellusi kom comme lépp sëñ daara di jànge ba mokkal ci daara di jàngaleel borom daara ja ngir àggale liggéey ba mu fa tàmbali woon ñenn ñi nee nañu loolu la ku mel ni docteur Rawxaan Mbaye nee na ñu baal ma chercheur yaa ngi fii bu ma dul tudd source si nature conférence yi moo tax duñu ko académiser trop mais ay sources yu wuute la docteur Rawhan daf ni Serigne Bir Xaali Amar Fall dafa amoon asrar ilmul asrar moo taxoon Maxtaan Lumbe demoon fa di jànge ilmul asrar mais am na beneen chercheur boo xam ne dañ koy fàtte lu bari ci ci waxtaanu diine te mooy source œuvre yi gën a sori yi gën a cosaane ci diggante istaarixul islam ci Sénégal mooy zuhurul basatin Cheikh Moussa kamara moom daf ni maam Mokhtar Ndumbe dafa ñëwoon parce que dafa bëgg a samp daara te waa piir mus maslaa nañu ak dammel ba jubóog moom muy ñëw foofu pour maslaa ak dammel pour mën a samp daara boo xoolee nag fee yi après dana dëgëral waxu Cheikh Moussa Camara boobu. fee yi bu ñu gisee fee après mooy ba mu fa jógee dafa sampi daara waaye ki doon négocier ak Pire ba may ko mu samp daara muy dammeel kooku la négocier ba mu samp daara donte dammeel yi bokkul kii ma xureeja wejji la ma xureeja ma xureeja dëggal kee ma xureeja kuli la moo daje xaali Amar Fall kii may sa tend wejji la am na nag di wax may sa tend joor déedéet sa tend joor njagay sa dajel may sa tend wejji moo daje ak maam Moxtaar Ndumbe Jóob la ma bëgg a wax foofu du duggaguma ci thème bi waaye damaa bëgg a wax diggante piir ak Kokki bi mu ñibbisee ba sañ ci Kokki ba stable <clears throat> doomi Serigne Pire ji gën a ndaw ci njabootam ci wàllu âge mi ngi tudd Mamour Assakan chercheurs yi ñoom dañuy tudd sëriñ piir Maam Moor déedéet Serigne Pire Mamour Assakan Mamour Mahmoud la tudd Mahmoudu Daari sëriñam la ko Serigne Pire tudde di ko mujj jàngal jox ko wér de xaadiriya Mahmoudou Daari Abdoul Karim al Maghili moo ko jox wirdu Qaadiriya Abdourahman al Jili Abdourahman al Jili Abdoul Qadir al Jeylaani Mahmoudou Daari moomu nag moom mooy ki jóge piir ci jabootu sëriñ piir fekk si maam Matandumbe jàng jànge ci moom xam-xam gannaaw bu mu mokkalee moom ci loxol magam Samba Adi moo ko mokkalal alquran yabal ko fii mu jàng si alquran mu jàng si xam-xamu diine xamaatuñu faneen fu mu dem jàngi fa moom sëriñ bir boobu xamaatuñu ko maanaam maam Maxtaar Ndumbe moo ko àggaleel est-ce que fekk na fi ay moom ci Maxtaar Ndumbe muy jàngale wala ay doomam a ko àggale moxtamal ni doomam ju moo ko war a mën a jàngale moxtamal loolu nag ixtimal la lu ko waral mooy euh, Maamur Asakan dafa dafa dafa mujj judd lool ba daanaka taawi ba Aadi moo ko mag taawi caati euh, nu mu tuddati euh, sëti sëriñ bi yu mag yee ñoo ko mag loolu day faral am ci kër dafa récent moom ci par rapport ak doomi sëñ bi te boo wax defee concordance yi da nga gis ni normalement bu fi dee fekk si maam Maxtaar lu mbir ci catu dundam la waaye li wér mooy kokki la jàng loolu relation joxante xam-xam la kon di nga fa gis ñaar benn bi mooy sëriñ bir xaali Amar Fall bokk na ci ñi tabax maam Makhtar Ndoumbe muy benn bu ñuy jël note ko parce que bi mu juddoo ca waragu njaataar jànge fa njàngum asasiyaat mokkal alxuraan jàng xam-xam yu njëkk ya dafa gàddaay fi mu njëkk a gàddaay dem mooy Pire li wér mooy loolu dem Fuuta dem ñëw Pire déedéet dem Pire doog a dem Fuuta parce que Pire moo ko joxoon sax Fouta Fall dafa jóge Warak Njaataar dem Pire kon asasiyaat yi buñ ko dee wax mooy ay xam-xamu ay risaalaak yu mel noonu bu doon ci jàngu tey dañuy wax ni bi mu mokkalee alxuraan ba noppi fa la jànge li ñuy tudde étude secondaire ba am mbag masalan dooga nag demi defi commencé étude supérieure mais mi ko commencé fuuta ci maam Masamba Thiam maam Masamba Thiam itam di ko génne piir moom it ci taalibe yi jëkk Pire mu mel ni sax ak boole dafa am waaye waaye nañu def taxafus ci yu mel noonu mais li wóor mooy ñoom ñaar am nañu zamaala ci Pire te jàngal na foofu itam maa ngi def benn ishaara ñeenti mag ñii buñ leen dee jàng ci histoire nañu teew nañu teey maam Makhtar Ndumbe maam dem Hadi maam Massamba Thiam maam maaram Mbacke gis nga ñoom ñeenti ñëpp dañoo jàngandoo jàngalante baat bi moo jógul de Cheikh Lo ñaanal ma bokk ndax baat bi jóg <laughs> ma ni ñeenti mag ñi bu ñuy jàng seen histoire nañu teey muy maam Demba Haali maam Makhtar Lumbe Diop maam Masamba Thiam maam Mara seeni xibaar yi ngay jàng ci ñoom dafa am tadaarub tadaarub diw jàng na ci diw waaye ñun ñooy dund diwee sëriñu diw diwee sëriñu diw ñun ñoo ñu dund waaye ñoom dund ñu woon loolu ñoom xam nga lu ñu doon dund diw tane na ma ci nangam ma jàngee ko ci moom bu ko defee mën naa nekk sax sa sëriñ nga nekk sama sëriñ loolu moo amoon ci jamono te jamono jooju itam dafa amoon ay xam-xam yoo xam ne raarate na woon nii xam-xam tasaaroo yomb ba ku nekk man caa jot demewu ko woon noona ca jamono jooja jamono jooja xam-xam raarate la di nga am fànn goo xam ni koo ko jàngalul du ko xam te ku ko jàngul ci diwitam doo ko man masalan ma wax la xam-xamu naxwu époque boobu ku ko xam ci Sénégal boo ko jàngewul ci maam Moxtaar Lumbe Jóob ak i sëtam doo ko man kon loolu day tekki ni boo jàngaloon ay sëtam alxuraan itam ñu nekk sa sëriñ ci naxwu loolu mooy rappel biñ ñu mënoon a def ci wàllu googu kon Pire ak Kokki jaxasoog deret ji doog a ñëw ndax njagay sa maam njagay sa jël na maam soxna faal ndaag soxna faal ndaag sëriñ piir demba aadi demba demba moo ko jur demba aadi nag dafa am ak demba soirée Demba Souaré sët la Demba Aadi doom la ci xaali Demba Souaré Yoro Assakan moo ko jur Yoro Assakan xaali Amar Fall moo ko jur muy maami muy euh, wëy muy muy muy soxna Fall muy waa kook yëpp xam di maami soxna Faatuma di maam di maami Serigne Bassirou Mbacké kon loolu mooy rappel bi doon def bu tuuti pour wax li lëkkale Pire ak kokki beneen bi ci des mooy kokki ñoo sauvé daaray Pire gannaaw bu maam Xaadi Omar Fall demee ndax Xaadi dafa jóge ci Sahara moom indi xam-xam waaye yeega yeexa yor yor kër ni mag ñi daan def ba ay doomam daanaka ay sët lañ ci moom ay doomam daanaka ay sët lañ ci moom rawatina doom yi maam Asta Kane Diouf maam Xaadi bi muy dem muy dem Xaadi Omar Fall fekk daara ji samp na nit ñi dafa jàng si waaye amul ay kaang ay mag yu dëgër yu yare daara ja te mënuñoo dem saxaraa jàngi parce que période boobu ku jéggi dex gi ñu def la jaam loolu mooy cause bi gënoon a dundal daara piir ak Koki maanaam ku bëgg a jàngi étude supérieure doo dem booy jéggi dex gi ñu lay def daa jaam léegi nag boo bëggee jàng te bëggoo yam ci lu tuuti li nga xam il faut nga ñëw ci daara yi ñu protéger ba mën faa jàngi daara yi ñu protéger piir la woon ak Koki protection bi mooy dammeel nangul la ko loolu nag xikma la fexe ba dammeel nangu nga yor daara di ko doxal doo ko empêché du la empêché ñëpp di ñëw piir te daara ja ña ko war a yor dëgëruñu ay mag la ay ndaw lañu par rapport ak la fa nekk njaboot ga fa nekk dem ci maam lu Lumbe mu àggale leen wax naa la dem ba aadi ni mu ko àggalee ci xam-xamu naxu wax naa la ni mu yare yoro assakan wax naa la ni mu yore membre assakan ñetti doomi sëriñ pir yi dong ñoom moom pir ñoom dong ku dul ñii moomul pir ci doomi sëriñ pir yi des ay sët lañu kon loolu tam di mission wu redressé daara joo xam ni foyer la mu may yóbbu bu baax man ci waxu Cheikh Moussa Camara moom dafa wax ni comme PUR benn projet bu taxawoon la Makhtar Ndoumbe yéene moo nekkoon ñëw soutenir projet boobu moo taxoon sax moom mu ne looloo taxoon mu dellu dellu yàlla def na <coughs> lii mooy relation bi diggante PUR ak Koki ñu mu des nag waxtaan wi tomb bu njëkk bi ñu war koo waxtaane ci époque historique yi seddalikoo ci duggug l'islam pour mën a situer histoire kokki ci biir époque yooyu xam nga l'islam au Sénégal l'islam au Sénégal buñ ko dee jàng xel yu bari dafay jàpp ni benn époque la benn xew-xew la benn jamono la universitaires yi waxuñu loolu l'islam dafa dund ay ay yu bari muy fatrat taarixiya li duxulil islam wala intisharil islam fi Sénégal al fatratul ula mooy duxulul islam faqat duxulul islam mooy tàmbali duggug l'islam ci Sénégal loolu maam Maxtaar Ndumbe fekkewu ko maam Xaadi fekkewu mi ngi commencé ci sultaan waari jaabi jaay en mille quarante ci la tàmbali loolu yàgg na ndax xaale Amar Fall moo jiitu te moom ñu ngi wax mille six cent soixante mille six cent sultaan waari jaabi njaay waari jaabi ci la dugge moom ci lislaam ba taxawu école de Pire et de Coq ci diggante boobu lislaam da doon dugg ci réew mi di continuer di dugg mais di ci façon bu libre ak ci façon boo xam ni ay nit ñoo yor am njëg di ay nit gis leen xemmem seen jikko jël seen yëf maanaam di leen toppandoo ca la def moo waral sax turu jullit xotti koo ci baatu jula turu jullit jógewul ci baatu julli de wax ngi jóge baatu jula maanaam ñi fi indi lislaam ay jula lañu woon ba duwul roxal lañu woon dañu yoroon ay caravane di ay njëgg di jaay si ñooñu nekk ñu ci ëpp almuravituun lañu woon muravituun ci la baatu mara bu jóge mooy kii xëy di gontu ci sàmm lislaam ci benn pukkus ba du fa yàqoo ñoon ñooy muraabituun muraabituun yooyu ñoo dugal lislaam ci Sénégal avant institution yi di taxaw avant révolution yi taxaw loolu mooy fatratu duxulil islam fi Sénégal fatra bu kenn mënul contrôler parce que l'islam dem na fu ne léeg waaye fu mu dem du fa am daara du fa am jàkka ay benn benn koy dund te dañuy làqtu di def la ñuy def mooy fatra bu njëkk bi fatrab ñaareel bi <clears throat> mooy fatratu aslama mooy jamono bi nga xam ne nag ay institution dafa taxaw di liggéey pour islamiser senegal yëpp mooy ñaareelu fatra bi boobu la Maxtaar Ndumbe fekkee ñetteel bi mooy fatratul xarakaat aslama fatratul aslama mi ngi tàmbalee ci qiyaamu dawlati da qiyaamu madrasati diir fa tàmbalee mooy jamono bi nga xam ni ay daara taxaw na ay jumaa taxaw ay boroom xam-xam toog nëbb wuñu wut ay barab moom ko di liggéey ngir islamiser réew mi di tuubal ay nit di jàngal ay nit di yóbbu lislaam fu mu àggul woon ci anam gu fës gu leer mooy fatratul ñetteelu fatra bi nag mooy fatratul xarakatul islaahiya mooy bi ñu demee ba jullit ñëpp senegal nekk ay jullit njaambur nekk ay ñi nekk jullit Kajoor réew wala fi nekk ay jullit laa mën a wax waxuma Sénégal parce que Sénégal lii bërki démb la bi ba ñu nekk jullit dafa am dafa am beneen affaire bu bees bu juddu mooy lislaam boobu commencé am ay problème ñu di ko dunde dundin wu baaxul mu jaxasoo ak aada comme amul état yu koy sàmm mu jaxasoo ak aada ba kenn xàmmee tut l'islam ak lu dul am sëriñ su ñëw nag ngir defara réformer loolu mi ngi commencé ci gën gaa sori mu ngi commencé ci Cheikh Omar Fouti nga xam ne ay xarakaat islaahiya la ñu roon doo xam ku Cheikh Omar Fouti yu tuubal ca Fouta kon ñëwul woon ngir tuubal waa Fouta fekk na waa Fouta tuub ba pare mais daf leen doon islaax islaax mooy réforme loolu ngay wax ci Cheikh Ahmad Bamba loolu ngay wax ci Cheikh Cheikhul Hadj Malick ñooñ ñooy fatratul léegi nag kooku dafa traversé ñetti fat fatra yooyu soo xamul fatra yooyu mënoo ah jàng apportu kooku ci fatra ci jamono yooyu jamono bu njëkk bi wax naa la ni jotewul dara ak histoire kooku boobu maa ni kooku ya ña ca empire de Ghana ak seeguñu mille six mille mille quarante moom sore na waaye bi am di dugg yor ay institution jamono boobu moo daje juste ak Mame Makhtar Ndoumbe jamono boobu nga xam ni li fi nekkoon ci réew mi maa ngi jégalu de kàddu gi de moom tey li fi nekkoon ci réew mi ci ay force politique yu doon waral luy indi tax ñu naan muqaawama te loolu mooy tomb ñaareel bi muqaawama mooy am projet mooy tomb bu njëkk bi sax na la le muqaddima la woon am projet bëgg ko samp am lu taxaw fi sa kanam ni la doo ko fi samp am projet bëgg ko samp am am droit tam ko samp ko am lu taxaw fi sa kanam ni doo ko fi sampe loolu mooy histoire humanité yépp ci àddina projet samp daaray kokki ak def ko mu nekk université buy rayonné ci àddina mënul woon ñàkk ci réew wolof loolu laay wax waaye maam Maxtaan Ndumbe Jóob mi ko doon wara sampitam pare na ci wàllu njàng ci wàllu formation ci wàllu ngër mi ci wàllu yëpp ci wàllu même taxtiit maanaam tëral plan boo xam ni ca lay jaar ba amal ko waaye li desoon mooy environnement di ko wër il faut mu jëflanteeg moom boobu tubaab yi duggaguñ fi li ñuy wax ote état moderne moom taxul ñuy wax tubaab yi colonialiste yi duggaguñ fi jamono Mokhtar Ndoumbé li fi nekkoon mooy lan ay dammeel dammeel yi seen problème mooy lan képp ku nekk gër mi maanaam bokk ci famille boo xam ni taq na nguur maanaam seen cosaan am na nguur walla ñu bokk ci famille boo xam ni nit ñi jox nañ leen dégmal nañ leen déglu leen ci mbir mbiri àddina soo tàmbalee am mbooloo danañu xool sa mbooloo foo jëm ak moom damee li loolu moo nekkoon seen problème benn euh, laaj bi mooy boo remonté maami Moxtaar Ndumbe Jóob maama mi jur baayam moo tàmbalee njëkk a nekk sëriñ ña ca kaw nag ba dem ba impérator moom am na sax ab shérif nag ndax am na ay dara waaye dañoo bàyyi shérif ga dem ca dem ca ceddo ga <laughs> diggante bi ndax boo remonté silsila bi gis Abdoulahi ay dara dangay gis ni kon ñii ay shérif lañu waaye diggante bi ña fa nekk ba agsi ci ayib waxuma Samba ayib ayib ci boppam diggante bi ñooña xamaluñ leen ay rol ci wàllu jàng ak jàngal waaw <laughs> yaa ko xam maanaam li ma bëgg a wax foofu mooy bu ñu seetee seen cosaan ngër mi gi tax buur ragal leen ma nga fa loolu laa bëgg a wax ngër mi gi tax buur ragal leen te buur daawul ragal ku ko wóor ni boo taxawee ni fal leen ma duñ la fal ndax am na ñoo xam ni lu ñu bari bari doole ci société traditionnelle bu ñu taxawee ni fal leen ma duñ ko fal ndax société bi moo leen dul nangu loolu waaye am na ñoo xam ne bu ñu taxawul ni fal leen ma sax nit ñi man leen leen a puus ba fal leen ndax société bi moo xool ci ñoom loolu moom ay maamam bokk foofu kon premier danger ci réewum société traditionnelle wolof mooy nga nekk ab lawax lool la wala fi kajoor di tudde lawax lawax mooy présidentiable en français mooy présidentiable mooy koo xam ni mate nga ko sëkk fal la donga tee nga nekk buur mbaa bi dana dimbali hmm. fal la dong mooy tee nga nekk buur kooku mooy la wax muy benn ñaareel bi mooy am xam-xam parce que xam-xamu diine dafa raaroon ba boo ko amee doomu soxna yépp dañuy dox dégmal si la te seenu dégmal si la day tax nga am mbooloo te boo amee mbooloo <coughs> buur dafay laajte kii fu jëm ak mbooloo imma nga liggéey ak buur nekk ci keppaaram di ko defal li mu bëgg di ko atteel ay atteem walla nga nangu xeex ak buur maam Moxtaar Lumbe ñaari choix yooyu la amoon mais boo xoolee ci deretam ak cosaanam ak li mu jàng ak fi mu jaar ci njàng mayu ko woon nekk ci keppaaru buur di ko liggéeyal mayu ko ko woon <coughs> waaye mayoon na ko nag mu maslaa buur maslaa mooy lan xam étape bi nga toll xam ni yow soxla woo nguur buur yorut loo soxla yow yoroo lu mu soxla nga bàyyi ko mu liggéey liggéeyam mu bàyyi la nga liggéey sa liggéey bu ëllëgee di ko gañe ndax li ngay liggéey bu ñoree nga gañe ko waaye jamono ji nga koy liggéey day defe ni moo la gañe loolu mooy problème bi maam Makhtar négocier ak dammeel Damel may sa may sa tend wejji bismillah Maam Maxtaar négocier ak Damel may sa tend wejji négociation bi am na ay jaar-jaar yu gudd boo demee ci téere yi ma nga fa mooy bi mu jegee Pire deful directement ko jot jot naa sanc ay daara sax ci biir Bawol loolu xasaba docteur Jima Jimka même su fekkee am na munaqasha waaye jot naa sanc ay kokki loolu tam dafay am lu muy tekki la neen mooy jéem na def projet bi ci yeneeni barab te loolu nag tumuraanke amu ci parce que yonent bi salaa sallam bi mu jógee di samp lislaam tëbul tëb dem Medina dafa làmbatu dem na Taif seeti Taif mayu ko lam bëgg yabal na ay nit ñu dem Habasha muy Éthiopie waxuñu mayu ko lam bëgg waaye foofu demuñu fa woon pour samp fa dañ faa demoon pour làqu fa waaye dem nañu quand làqu di fa mais moom nag bi mu demee ba gis Medina ci la samp li mu samp loolu laa bëgg a wax ci doxu Maxtaar Ndumbe ci biir Kajoor ak i gox goxaan ba mujj ci kër nijaayam waaye dox googu yépp li ko doon indi li soubassement yi moo nekkoon dammel téeñ may sa tend wejji ban position la am ci moom am nay jamono mu nangul ko def daara fu mu bëgg a def am jamono ay nit yàq ko xam nga rek yëfi dammee rek ba mujj nag définitivement mu ko loolu mu xaawama la ci ñaari anam mu xaawama la ci dékku borom sawka borom yi dëkk borom doole ba samp sa projet waaye mu xaawama la ci ëpp xel akum njàng ak xam-xam ak vision ñi newoon ci jamono ba mën a samp sa projet barakallah Diop kon ñaari bunta ngoog beneen bunt ci mu ma mooy Malamine Sarr fii nag damay wax kooki duma wax Makhtar Dumbe ndax Malamine saar doomi Makhtar Dumbe la dajal ay doomam Malamine Sarr histoire la bu ñu xam Ahmadou Ahmadou Faaxu Dia muy taaw maam Makhtar Ndumbe moom la Malamine Sarr dajeel maanaam Malamine saar gannaaw ba mu nekkee bokk ci kenn ci taalibey ko dafa jafe am jafe jafe-jafe yu metti ak Amari Ngoone Ndeela kii tey du may sa teen du wejji mais Amary Ngoone Ndeela la Ngoone Ndeela am ab diggante ah, Diop Diop sëriñ bi barakallah barakallah am ab diggante ak Malamine Sarr maam Malamine Sarr ba bakkanam tuuru ca loolu gannaaw maxtaan lu mel waa kokki ci njiital Modou Fa Khoudia ni dafay i'lan jihad dafay déclarer guerre contre Damel Amari Ngoone Ndeela i'lan jihad jooju ànd na ci ak Medoune Soxna Ñaan ak Serigne Ndaam Siré Khoudia Kumba ak Serigne Pir Mamour Astakan ngir jàmmaarloo ak dammel Amari Ngoone Ndeela kon beneen taxawaayu muqaawama jasadiya maanaam muqaawama boo xam ni ci jëmm la ci guerre la bu kokki am mi ngi noonu ak Amari Ngoone Ndeela wax wax ko ñu organiser yàlla def kon muqaawama amaat na foofu ñetteelu muqaawama bi muqaawama Serigne Koki Jagay Sala moom mi ngi ko séqaloon ak dammeel Birima Fatim Cubb dammeel Birima Fatim Cubb moom daje naa ñaari dammeel moom moom maam dammeel Birima Fatim Cubb ak dameel may seteen di jot Birima Fatim Cubb ma tàmbalee ak moom waaye moom la gënoon a ñàkk jubal ba moo waral ak exiléem bari na sëriñ Gorki bu ñu faat ci diggante boobu la diggante Amari Ngoone Ndeela birim birima Fatim Cubb may sa tend joor la ko waral nag boobu mooy Kokki màgg na ba nekk menace ni mu nekk mënaas mooy àddina bi yëpp dégmal si na ko te dammeel yi dañoo bëgg ku am mbooloo nga bootu ci seen gannaaw sëriñ Xaadim Jóob dañoo bëgg ku am mbooloo nga bootu ci seen gannaaw te waa kokki nanguwuñoo bootu ci gannaaw dammeel yi moo nekkoon problème bi amul laneen bu dee tubaab yi laneen la mais ñii moom yaruñu woon projet éducatif buy accidenté buy tampaloo ak projet éducatif bu Koki maanaam tubaab yi li leen jotale ak Koki bokkul ak dammeel yi leen jotale woon ak Koki dammeel yi problème leadership moo leen jotale ak Koki leadership mooy maa fi nekk ñëpp gis ma gisuñu kaneen bu benn waay ñëwee ñëpp di ko tàmbalee gis di ma réere ma amuk fiir loolu mooy leadership moo dox diggante dammeel yi parce que dammeel yi amuñu woon projet de société amuñu woon projet éducatif tradition bee leen fi bàyyi rek ñu bañ fee jóge loolu rek la loolu moo tax njagay sa gàddaay dem waalo jóge waalo dem Dakar jóge waat dem Kajoor jóge waat Kajoor dem Fuuta ba ni mu faatoo rahimahullah wa radiyallahu anhu ca njum kon bu ñu xoolee ci wàllu muqaawama mooy dékku dékku ab noon te dékkoo ko jom aku fit ak ngor danga gis ni kokki traversé na ay époque yu metti waaye époque yi ci gën a metti mooy bi maam Moxtaar lu di doog a faatu ay doomam ne fi nga xam ni dangaa wax ni booba sëriñ kokki yi ñu rey daanaka ñëpp ci époque boobu la njabootuk Moxtaar Ndumbe bi ñu faatu yëpp ci jamono jamono boobu la gën a metti ba bi ñuy dem ba fanweeri at yu ñuy wax ni kokki fay na ko ci diggante boobu ci la nekk njaga isa doo ba dellu si gannaaw fanweeri at yooyu ba ci période am moom benn rayonnement rek la am benn rayonnement waaye rayonnement bi sax dafa fayaat tubaab bi dañu ñëwaat dominé waat bu mu exilé kon pour wax la ni mu ma ci wàllu taxawaay mi ngi noonu waaye li ko waral xam nañ mooy ñaari yëf benn bi wax naa ko mooy projet mooy tàmmee yi amuñu projet ñoom mais problème leadership la ñu amoon ak ñi fi nekkoon ba pare dañoo gisoon ni Makhtar Ndoumbe gërmi la bokkul ci deret yi nga xam ni bu ñu nee bu ñu wootee ñu fal leen duñ leen fal woote wu ko mais dammel dafa am ku muy ragal am na koo xam ne lu mu bari bari mbooleer dammel du ko ragal lu tax du ko ragal parce que xam na ni société traditionnelle bi mënuñu koo fal société traditionnelle la wax niñ daan fale am na ñoo xam ne daawuñu fal lu ñuy la wax muy benn bi ci des nag muy bi dajee Ndiaga Issa nag vraiment boobu tampaloog ñaari projet éducatif la boobu moom tubaab yi ñoo ñëw Ndiaga Issa amoon na problème ak damme yi wax naa la ko moog Birima Fatim Thioub moog may sa tend joor mais tubaab bi moo la gën a amalanteel problème parce que tubaab bi moo ñëw nag bi jàll dammee yi jamono boobu ci kaw sëriñ si ndax ah kenn ci àndalu kenn la ci bëggul waaye ki gën a woyof ci moom mooy dammel ndax ceddo bi moom li tubaab bi gëm na gëm kii daa ñuul kii xees rek waaye ñoo ñoo yam loolu rek mu leen séparé kii di traditionnel kii moderne kii yor fital kii yor jaas yi waaye benn lañu objectif yi benn la am amaa sëriñ bi nag dafa am projet de société bu tubaab bi jàng avant muy ñëw mooy alxuraanul karim yónni mustashrixuun yi ñu jàngat ba xam ni waxi yàlla ji ku ko gëm ba jaamu yàlla doo jaamu keneen ku dul yàlla ku ko dund doo suufee doo nërmeelu lu dul ci alxadral ilaahi yàlla rek ngay gëm koo toppit ku mën a doon da koy toppee yàlla jom la ëppale wala façon boobu bokk dëgg bi gaa xamoon bu yàgg dañ daan topp nit parce que mooy diw doomi diw wala yor na alal wala yor na doole mais projet alxuraan moom dafa ñëw andi contraire lañu ñu gëmoon te buñ ko jàngee bu yàggee moom dooleem day jeex moo tax alxuraan ku bëgg a moom nit ñi moom nga gën a ragal ci àddina ku bëgg a doomu aadama yi alxuraan nga gën a ragal ci àddina tubaab yi fi ñu mas a jaar ñi gën a résister gën leen a jaaxal mooy waa alxuraan loolu moo waral jafe-jafe Koki sëriñ Koki ya ñu rëy yëpp loolu la du woon nag question leadership moo ba question projet éducatif la ak tubaab bi sëñ Mourtala tey danaa jégguluwaat de kàddu gi daal tey moom coono coono bi jàpp nañu lool <laughs> résistance bi loolu lañ ci mën a tudd muy ñaareelu mooy tomb bu njëkk bi al muqaawama bi nga xam ne dañ ko mën a tuddee onf ngi ci wala jihaad a ngi ci wala on nuñ ko mën a tuddee mais taxaw résister ci sa kàttan ngir defendre l'islam ba sa bakkan def ci des ci loolu moo tax doomi Matar Ndoumbe Diop yëpp ci résistance boobu kokki dem ba tasaaroo ci biir àddina bi tasaaroo ga mooy ñiy gàddaay dem fu nekk moom moo tax bari nañu ci bokk ñoo xam ni daanaka ca Matar Lumbe Jóob lañ fi gëjëwoon maanaam la ci seen maam ndax teel a gàddaay gi ak tasaaroo ci biir ay waaye loolu itam inaaya ilaahi yaa ngi ci suuf suuf yaa ngi koy jàng yooyu ñoom Serigne Moustapha Diop yi nga xam ne ay ay demkat lañu bu ñuy dem bu ñu fàtte bu ngeen demee bu ngeen ñu mënta yóbbaale da ngeen war dal meññant bi rek bañ jot ci dañu wax ni yàlla bu bëggee dara day indi ay sabab léeg-léeg sabab yi day metti l'islam war naa tasaaroo ci biir réew mi te bu ñu bàyyi woon sëriñ si duñu ñu ci seen cooba rek bopp dem tasaare ji ko yàlla créé condition yu tax ñu dem tasaare ji ko moom indiwaat misaal mi ci alxuraan ndax ñu gën koo dégg Moussa dafa war a jàngi war a dem daara nekk na leader politique moom Moussa nekk na citoyen du monde nekk na l'homme moderne yëpp nekk nekk kër Firawna soxlaatul ku koy jàngal dara ci àddina parce que yaroo kër Firawna rek dafa mel ni mooy yaroo Maison Blanche ci tey loolu lay tekki tey lim nekkagul mooy donga daara te xamul fu muy jaar ba nekk donga donga daara yàlla ni ko nag damay def pexe man pexe bi mooy créer benn seen ba nga rey benn waaye ñu jiñ la ko nga daw waaye boo dawee boo dawee ci daara ngay tàbbi <laughs> fekkub sëñ daara mu yar la nag waaye buñ ko bàyyi woon niin fi ñu toll kuñ bàyyi ku ne doo demal sa bopp daara ñun ñii ñëpp ba ñuy dem daara metti na lool ci ñun ñun ñii ñëpp nag waajoo fi gis mu bëgg alxuraan coono baa ngi naan kii baax kii bëgg alxuraan buñ la indiloon si euh, film ba muy dem daara <laughs> film ba buñ la ko indiloon da nga xanaa kii du diw <laughs> léegi loolu mooy inaaya ilaahiya mooy yàlla li mu nar kenn mënu ko koo tee def Moussa dem daara par force ba mu demee daara amee na fa xam-xam amee fa responsabilité nekk fa ab baay faal bi maanaa nekk fa baay faal mooy nekk fa koo xam ni kër ga mu dëkk lu yëngu moo koy régler ndax ña mu dëkkal mooy ay jigéen akuk màggat màggat day am xel mu rafet te du man dara jigéen moom bànneex ak la mu bëgg ca la nekk ak kan ak jur ak jur rek moom noonu la mel il faut ñu toppatoo ku ko yor doo nelaw màggat ku ko ku nekk ak moom dangay ngay amub yar boo jëflanteeg moom dëgg da ko déglu di ko dimbali di nga ko yërëm ñu tàggat ko ba pare nag defar ko ba noppi nag doo ko delloowaat Firawna nag boobu dem na daara ba ñëw Sénégal tam bi mu waree dem daara kokki nekk fi bu continuer woon kokki doo nga daaree alxuraan leen leen déedéet alxuraan nag man andiwuma ko fi pour ngeen jël kokki rek dugal ko fa rek santale ko jóob wala loo walla yooyu rek il faut mu dem ci yeneen gox yi pour mu dem ci geneen yeneen gox yi dama yebal dammeel yi ñu toj kokki rey ay sëñ daara rey ay sëriñ kokki ak njaboot gu mokkal alxuraan jóg fi làqudi ci yeneen contrée dem ci yeneen ruq yóbbu fa alxuraan loolu tadbir ilaahi la mel na ni li am tir mën nañ ko nettali parce que ñaari daar yi ay seex lañu l'islam pour mu dugg kajoor il faut benn la wax andi ko ñu doog a fonk l'islam parce que dañoo xeeboon ñu ko fi daan indi ku am cër ci nguur gi koo xam ne dañoo xam ni lii muy wax kat ñàkk fu mu dund ak lu mu lekk ak lu mu am taxul mu di ko wax mën naa koo wàcc waat ba ci suuf ci taarix Serigne Touba. liggéeyam la ca Cheikh Ibrahima Fall def lu mel noonu la ak murit njëkk ya kat mooy ñi meloon ni man ñu néewoon doole ñoo ci ëpp de ak ñi nga xam ne ay sëriñi kese lañu waaye la wax boo xam ne mën naa falu dammeel lu mu dugg danañu xoolaat lu mu doon te den du xeeb loolu bu la neexee nga yéegaat ba ca kaw indi ko ci Omar ibnul Xataab ak Hamza ba lislaam nekkee Màkka nekk yëfu benn groupe bu xaw a ñàkk solo ci wàllu taarix yàlla dafa dogal lislaam dugg ci xolu Omar muy gërmi dugg ci xolu Hamza muy gërmi bi nu ñëwee niveau bañ tolloon tollootu fa kon yàlla loxoom a ngi ci biir lislaamam bii alxuraanam ji yàlla dogal nag kokki tasaaroo kon leer gi nekkoon ci benn ruq ñenn dong di ko jàngi ku fa ñëwul jàng doo ko jàng te leer googu ak bu piir li leen teqale foofu danaa fi waxaat defuma comparaison mais damay wax xiima bi kokki amoon ci réew wolof piir daara la woon joo xam ni daaray tukkulóor la gënoon a nekk daaray wolof ba ci diir bu sori ba ci diir bu soree sori bidaaya bi euh, bu ñu la waxee ni boroom daara ga sax déggul woon wolof sëñ biir xaalamal Fall déggul woon wolof déggul woon sax wolof maanaam ñàkk dégg wolof bi di làkk ay wolof yu reelu wolof yu reelu di ko jaxase moo indi dëgg-dëgg baatu piir xam nga wolof bu la nee ñi ngi dem na kaa ñu dem ca ceetaan ma kaa ñu dem ca nàngam ja parce que dafa nekk événement ñoom ñëwuñu woon pour firi dañ doon ñëw di seetaan kii jéem a làkk wolof ca dégg ko loolu ma nekkoon ceetaan ma loolu loolu ma waral tur bi kon li ma bëgg a wax foofu mooy fatra bi Makhtar Ndoumbe Diop làqee ay sëtam ay doomam nekk fi ay sëtam ñëwaguñu fatra boobu li kooku liggéey li mu méttee nag ci boo koy jàng moo gën a métti ci fatra yi waaye mu fi liggéey ci lislaam moo ëpp li lim liggéey ci yeneen fatra yëpp parce que njabootam ci lañuy tasaaroo dem fu nekk ci senegal daara ubbiku foo xam ne xalaatuñu woon ni dana fa ubbeeku maanaam man nga cee boole tey euh, demal kap Vert tey Serigne Ndakaaru Jóob lay sant njage yi sama fa ñëwoon ka fa nekkoon moo ko def dam ko def jàngal ko alxuraan jàngal leen yar leen ba ñoom ñu nekk ay sëriñ est-ce que bu njage yi sa nekkoon kooki am jàmm amul dara lu ko génne est-ce que dana dem Ndakaaru dem na waalo après kon loolu tadrib tadbir ilahi la kon muqaawama gi loolu laa ci mënoon a wax maa ngi indi tomb bu mujj bi ànd ak nag waxtaanu tey moom damay jégalu bu bare bare bëri baat bi nangu coono bi këpp na suñ kaw ba bax ji nañu ko kii waaye wafa bil ahd ndax dañ koo diggee te wax naa ni kokki bi fi ñëw jóge Pire ñëwee woon fi conférence dañ fee ñëw def pèlerinage ñi déggul tubaab nag mën nañ ko ñaawal pèlerinage mooy topp toppatu tëccatu ay muqaddasaat tëcctu sa démb ndax bi may tàmbale nee naa mën nañoo wax ni kokki ci mu xarrajaat ci li pir génne ci la bokk waaye mën nañoo wax ni piir ci li kokki génne ci la bokk te bu ci ne dafa am dalil adilla taarixiya yoo xam ne kenn du ko puuti kon loolu rek jaraloon na ma ñëw beneen bi ci des nag nga xam ni mooy tomb bu mujj bi mooy almuqaawama saqaafiya almuqaawama saqaafiya bi man nga jëlaat fañ jëloon dugal ko ci bi Maxtaar Ndumbe radiallahu taala anhu sosee koppi koppi la mu doon def mooy jàngale ak yar ak defar soo jàngalee nit yar defar ba pare samp ko accompagner ko protéger ko ba muy man di produire li ngay produire yaa ngi taxsiin yaa ngi tas taslix yaa ngi indi créer li ñuy tudde résilience intellectuelle goo xam ni ku fi mën a dugg ak loo fi mën a duggee di nga fi fekk nit ñu mat nit ñu xam seen diine xam seen bopp loolu kon boo limaatee daara yi génn nga dem njaañ dem ba ci mbëllëxe daara yi génn ci kokki boo ko limaatee di nga gis ban forme de résistance culturelle la Mokhtar Ndoumbe Diop organisé mooy jàngal nit yar ko defar ko yamoo ci nag mais samp ko duma la jàng rek nga mokkal nga nga dem jaar fee ma jaar fee déedéet taxaw samp la samp la ci jox la sama njaboot samp la ci jëlaat sama njaboot buy jàng nga jàngal leen samp la ci buum gi ndox suñ diggante dara du ko dagg balan accompagner la parce que sëriñ daara yi yëguñu woon ak ci daara kese noonu toog ci broq rek di jàngale waaye ay missionnaire lañu yu war a jàngale alxuraan ci li leen wër waaye war koo sàmm ba ñi ko war a xam ñi ci war a jot ñëpp jot yëg-yëg boobu moo tax loolu am kon première forme de résistance bi foofu lañuy tàmbalee ñaareel bi mooy matuk li fi nekkoon ci xam-xam parce que wax naa la ni Makhtar Ndoumbe Diop dafa jaar lu mu jógee Pire naar ya fekk ko fa. loolu moo wér ñenn ñi ne nañu ay tukkulóor li ko waral mooy bi mu jógee dem ci Massamba ñu ñun looloo tax ñu ni tukkulóor déedéet ay naar ñoo ko fa fekk gis ci moom. li ñuy wax firasa tey jii ñu ñi kenn ku ci rek mën naa dem daara sëñ Abla sëñ Alaaj Njaay mais gis fag gone voilà sëñ Alaaj sa gone gii waxal ak way juróom kii de yaakaar naa ne ku ko jàpp taxawu ko mën naa àgg fa sori loolu mag ñu baax ñi nga fi gis ñépp gis nga ko ci ñoom naar yi gis ko ci biir daaray biir waxtaan ak sëriñ ba ci kii ku mu war a doon ëllëg loolu mooy sababu demam jóge Pire dem Fuuta ndax escalier bi moo nekkoon jóge piir dem Fuuta jóge Fuuta dem gànnaar mais nekkul woon jóge piir dem gànnaar gànnaar lañ daan mujje te gànnaar dafa amoon sax ay conditions yu ñu fa daan demee kon mu jóge piir dem Fuuta Fuuta googu maam Masamba Thiam la maam Masamba Thiam Cheikh Ibrahima Niass radiallahu taala anhu dafa bind leetar Serigne Mbacke Bousso Serigne Mbacke bu sa dafa nekkoon xam nga kooku tam si bu yéeme la dafa nekkoon marja ci yu bëree bëri waaye bokk na ci taarixu Fuuta xasatan da cee nekkoon marja ñetti mbir wér saxal na ko sëñ Modou Lamine Diop Dagana nee na lu ma xam ci Fuuta moom moo ma ko xamal dama ci waaw na dim xikaayaat yëpp moom lay dellu Serigne Bassirou moom li muy laaj lépp lu laal Fuuta bu koy li danaan xakkaa alay alhamu nangam nangam sëñ Mbàkke bu sa lay wax loolu lay doon waaye bàyyi nges tam nekk indaat beneen firnde mooy bind ko leetar ni ko damaa bëgg nga xamal ma sama maam ji ñuy wax maam ma Samba Thiam mooy kan mu tontu ko tontu bu neex boo xam ni mu xaddima ba ab bind la ni ko maam ma Samba Thiam nag mook ñii ñoo àndoon ñoo maase woon jàngaloo jàngalante mooy li ma doon wax léegi tudd ko ñeenti ñi ma tuddoon léegi mu ni ko ku ñuy wax Makhtar Ndoubé Diop ku ñuy wax Maam Maara Mbàkke ku ñuy wax sëriñ Pire Demba Fall ñii ñoo àndoon ak Maam Ma Samba Thiam tolloonte loolu tontu Serigne Mbàkke Bousso ci leetaru Cheikh Ibrahima ba ma nga yeneen mu arrixuun yi ku mel ni zuhurul basatin saxal ni Mame Samba Thiam moo leen magoon as moo magoon aslëf taarix saxal ba tey maam Moxtaar Lumbe bind ni téere bii maa ngi ko jànge ci sama sëriñ cheikh yi maam Masamba Thiam cheikh yi Masamba Thiam ñun ñoo wax maam Masamba Thiam mais moom cheikh yi Masamba Thiam la tudd la wax kon tam mooy beneen Euh, dalil taarix yi léegi nag zama tasaamul googu lu ci judd tasaamul googu lu ci juddu lu ci judd mooy saxuk daara yi ak seenu meññ ba boo doon tënk daaray Sénégal daaray réewu wolof ñun tam nañ def attention bu ñuy waxtaanee mag ñi nañuy wax réewu wolof parce que Sénégal gi ñuy tudd Sénégal tey am na ci gox yu ci nekk yoo xam ni histoire bii du seen histoire goxu Mandeng ñoom dugg nañ ci l'islam bu yàgg duggee nañ ci ci yeneen bunt yi bokkute yi ñuy wax ñun moo tax nañu maandu ci li ñuy waxee fuuta taarixam ak suñ taarix bokkul donte lëkkaloon waaye ñooñu jiitu ci yenn yi Maam Masamba am moom tukulóor la Haalpulaar la dañu wax ni saam la jóge saam moo andi caamam bi waaye bi ko sëñ Mbàkke Buso di bind bindu da ko binde saam loolu isaara la xattiya isaara xattiya ci ni maam ma sàmba caam maam ma sàmba arab yi la bu jóge saam waaye nga xoolaat gannaaw bi maam maaram maa ngi wax ci résistance ilmi euh, intellectuel euh, spirituel maam maaram jàng na fu bari jaar na fu bari ci li taarix wax waaye fu ëpp la mu jànge mooy maam Maxtaar Ndumbe Jóob moom mooy fa mu ëppe la jànge waaye yamul ci jànge fa dañoo wax ni nag tarbiya ruuxiya bi mu am te tarbiya booba moo rogalaat ba indi tey nekk barkeb waa Mbàkke tey ndax mooy daara ja tarbiya boobu mi ngi jóge ci maam Moxtaar Ndumbe Jóob ak ñaanuk barke ga loolu nag sirru la boo xam ne xaw ma fu mu nekk waaye danaa ko jeex naa ko ba tàyyi kenn mënu koo gis. jeexal hmm? nañu ànd di jeex kon bu fekkee al manhajul ilmi fii kokki al manhajul ilmi fii kokki mooy barkeb Mbàkke daara ja ak la ca sosu mooy moo taxaw moo tax ndonol xaare Amar Fall raaful parce que bi mu fi jógee ay doomam dañoo tafu si ci Maxtaar Ndumbe Jóob ma àggale seen àlluwa loolu moo tax ñun ñu leen di xool bëtub sëriñ donte yéen ngi ñuy xool bëtub sëriñ loolu boo ko xoolee lu gën a rëy mën manhaj boobu ci taxaw ci kanamu alxaswul fikri ak yu jóge ca biti te bëgg a yàq xelu nit ñi ak seenu dundin amul lu gën a rëy ci lu ñu organiser lu toll noonu muy benn ñaareel bi bi may mujjee am na ñett la sax waaye ñaareel bi mooy liggéey ci wàllu mbind defe naa ni muqaddimatul kokki ya dong man bi ma koy jàng xawma fu kokki féete xaw ma Tiwaawan laa doon jànge ci sëriñ bu ñuy wax oustaz Malick Diop dib lébu xaw woon sax lu tax mu bëgg ko génn bëgg bi waaye après xam naa ko moom du oustaz Malick Diop bu mboq Tiwaawan ma nga moom mi ngi ko jànge ci sëriñ Alioune Guèye muqaddimatul Tawfiya pour wax la muqaddima boobu roq yu dugg ci Sénégal sëriñ Alioune Guèye moo ko ko jàngal Oustaz Alioune Oustaz Malick damaa ñëw andil ko Ibnu Malick ni ko dama ko bëgg a dal mu ne ma mu ne ma jàng muqaddimatul kokkiya ma ne ko déedéet mu ne ma man dama jàngal Ibnu Malick ku jàngalul jàngal muqaddimatul kokkiya demal jënd demal wuti ko moom maxtuut la may dem ca gaañu di bindantu di bind ba am ko ñëw ni ko am naa ko mu ne ma nañ ko dal muy kon téere boobu firnde la ci résistance su kokki ci wàllu xam-xam moo xuj akumba mi ko taalif li xaale xaalima jaxate ka la wax ci moom bayit yu neex yooyu xajul ci waxtu yi waaye ku ne xam na kuy xaalima jaxate ka la marja'iya ilmiya ci jamonoom boo xam ni kenn du ko werante ci Sénégal su demee ba seet ni yow yaay ki wéet ci jamono yaay ki nga xam ne yaa raw ci jamono hmm? ma leer ci bayit yi tuuti waay afawaa faayiqa al aqraani sayida jiilihi raisuhumu fi fitnatin wa zakaayi faayiqul aqraani la ko xaadima jaxate kala di tudde sayidu jiilihi loolu maqaama la tolluwaay la raisuhumu fi fitnatin wa zakaayi loolu xaalee koy wax atammuhumu aqlan wa diinan wa chiimatan wa abharuhum wa abharuhum fii jawdatin wa bahaai wala tarkib bu garaaw bi rek abhar fii bahaa <laughs> kon atam abhar fii bahaa Moussa Diop boobu ma danaa dal si jiw bind boobu boobu moom yaa ma ci doy <laughs> ma ngo dafa géme fa fi nahwi wal arudi wal ilmi kullihi nubaahi bila danbin lana wa wa wa qadaai yani fi nahwi wa qadaain nubaahi bihi bila dande alqaadi jaxate kala nee day tiitaroo moor xuja kumba ci naxwu ak aruut qaadi jaxate kala da koy tiitaroo ci alqadaa mooy mën a atte moor xuja kumba moomu kat ci ñeen fukki at rek léppam la ci la jeexe ci la faatoo euh, bi mujj ci résistance boobu dama ko dëxañ parce que waxtu wi jeex na wax nañ ma ko te tey moom dama xawma lu ma dal waaye kàddu gi ndax aw dafa leerut bi mujj mooy résistance spirituelle et scientifique bi monde islamique gën a xam ci àddina te loolu nag maa ngi wax ci contrôle borom xam-xam yi mooy bi Cheikhuna Cheikh Ahmad Bamba teg muy ab mën loolu nag du waxi murit buy wax waaye waxi chercheur buy wax la résistance boobu mi ngi déparé ci teqalikoog waa fii ak seeni nattukaay ànd ak waa fee ak seeni nattukaay lan mooy xiimab Serigne Touba kokki la tàmbalee woy asmaa ahli badri lan mooy xiimab xiima taarixiya bi mooy lan lan moo tax tàmbalewu ko Mbàkke Baari lan moo tax tàmbalewu ko faneen mu tàmbalee ko kokki mooy résistance bi mu jóg di dem muntalak bi fii la résistance bi muntalak bi fii la te résistance boobu mën manhaj la bu mu andi jëlee ko ci maam yooyu waaye ñu de raafaloon ko mu dekkal ko mbokk yi liñ bëgg a wax ci maam Makhtar Ndoumbé Diop ak i njabootam maa ngi jéggalu nag wax dëgg yàlla tey moom ñaari gàllankoor am nañ benn bi mooy nekk ci ay yëf yëfaan ba suñ baat yàqu ba mënatuñoo wax ndax coow li ñëw soj xam naa gëj kook ki géej yooyu moo tax ndox mi xawma loolu la xawma waaye daal kàddu gi xaw bañ ba tax na ni ci leer amu wax dëgg yàlla waaye li ñu tiim bind ko du jeex ci ab bis ci histoire maam Mokhtar Ndoumbé Diop dañuy romb di dem junj bi daal mooy ñetti tomb lañu waxtaane bu njëkk bi mooy placer maam Mokhtar Ndoumbé Diop ci époque historique ak njabootam ku ci ne da am époque historique boo xam ne buñ la ca placé wul duñu la dégg sa injaas it foofa lañ koy bi muy benn mooy muqaddima bi bu njëkk bi mooy muqaawama muqaawama jasadiya wala muqaawama onfiya wala mu muqaawama jihaadiya nuñ ko mën a tudde gi nga xam ni def na ko moom ak njabootam boobu nag mi ngi commencé ci ay doomam yi mu jur bi mu fi jógee tubaab bi faagaagal leen wala ceddo yi faagaagal taxawaayam ci maamal euh, dam taxawaay ci damel euh, amari ngone ndeela damel may sa tend wejji damel may sa tend joor taxawaayam yooyu yëpp njaboot gi dékku nañu leen ba ba wane jom ak fit ak ngor ak gëm say principe ci loolu ñetteel bi mooy résistance ci wàllu culture loolu mi ngi tàmbalee ci njàng ma ak yar ba ak barke ba ak bokk ak ñi baax ñëpp ab jullit nag foofu laay tëjee wala ab alkat ci wàllu su mënta dund étape yëpp su mënta dund étape yëpp takku yi matul ñàkk def étape ñàkk def mën haj bële dug tële dug tële waaye suwaawu mën haj la te suwaawu mën haj jamono moo koy dicté dégg jamono moo koy dicté mais du lu ñuy donn cheikhuna cheikhul xadim mi ngi farak ahmadu cheikhu ba ca xare ba samba sadio mais mi ngi fatwa ni jihaad ja waruñu koo def waaye moom la faral ah, ba ibra ko bi jóob ñëwee indi façon ah. lu mu ko wax duma la nangul sa njëbbal parce que ki nga doon xeexal sama mbokk la li may def moom lay def li nga fa jëlee wérut baaxut sellul kon kooku la fa waaye manhaj bi du mën manhajam waaye kii da koy jëfandikoo fu mu nekk jëfandikoo mais du ni lu li muy def waru koo def mais fa koy defee la ko war a defee la kon xàmmee kañ la ñuy kañ la ñuy kañ la ñuy jooy kañ la ñuy jàng ak kañ la ñuy lii ak kañ la ñuy lële loolu moom mbirum ku yàlla dox jot doon nale nga war a taxawal yonent yee ci kaw suuf wa sallallahu wa sallama ala ashrafi xalqi muhammadin wa ala alihi wa sahbihi maa ngi jégaluwaat qualité kàddu bi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh Daarakoki TV Daarakoki TV, la chaîne au service du Saint-Coran, la seule voix officielle de l'Institut islamique Cheikh Ahmadou Sorim Lo de Koki, télé bi liggéeyal Al Quran Al Karim